了，也是呀的，那不管也是呀，那不管也把不我的的那是呀的那了，也是呀的，那不管也是呀，那不管也忙些没什么没是呀的那了，也是呀的，对的对的，对的不管多点，那不忙点了不做，对的呀，不忙些对的，对的对的，对的不管多点不来，把不我的的那。 gaye gaynde nga gaynde gaynde gaynde gogol mo sama géer gi moo baax wewe yaa ko mu biye maam jaara gaynde gaynde gaynde gogol nampu maam jaara yooy borom yaa juba biye gaynde nga bilay faal njaga yaa koy sa biiga kuma faal amadu faal sayen jaaj yow dem nga jeeg dem nga jàpp ci yàlla ko yàlla sa jàmm Cheikh Ibrahima Fall yàggal tey Fall yaram leer yaay borom faal yaa ngi ne la nga koy faal yaa ngi koy faal yaa ngi koy faal yaa ngi koy faal yaa ngi koy faal yaa ngi koy faal yaa ngi koy faal آمين فال jërë ngeen jëf euh, mbokk yi topp ci biir réew mi ak bitim réew euh, ñi ngi ñaan Cheikh Mouhamadul Mountakha Mbacké yàlla na fi doole yàggaat lool ànd ak wér waaye di ko ñaanal bu baax maam Cheikh Ibrahima Fall muy sëñ Amdi Fall euh, Modou Mbenda xalif général de Baye Fall di ko ñaanal bu baax Serigne Cheikh Fall ndigal di xalifab Serigne Cheikh Fall Baye góor naaru maam Khadilo yàlla na sunu boroom eh, yàggal ko eh, ci kanamu taalibe yi mboolem njabootug eh, mboolem njabootug sëñ Cheikh Fall gépp rek ñëpp ngi ci ginnaaw Serigne Cheikh ndigal mi nga xamante ni mooy xalifa Serigne Cheikh Fall Baye Góor ku ne xam ne ni wax naa ko sànq Mbaye cameraman Serigne Cheikh Fall Baye Góor di modèle Serigne Cheikh Fall Baye Góor di jàmbaari islam waaye Serigne Cheikh Fall Baye Góor nekkoon ñayu xare waaye Serigne Cheikh Fall Baye Góor nekkoon jàmbaari fàkk tëdd joo xamante ni bi mu fi bàyyi ko 1984. bàyyi nag sunu jàmbaar jii muy Serigne Cheikh Fall ndigal di xalifa Serigne Cheikh Fall Baye Góor ndax ku ne xam na ni euh, Serigne Cheikh Fall euh, Baye Góor 1918 la gane ca Ndakaaru maam Serigne Fall ni euh, Baye Góor ñaag Baye Góor ñaangoog waaye ku ne xam na ni Cheikh Mouhamadou Moustapha Fall mi mi nga xamante ni moo ko meññ 1930 ba 1950 la Cheikh Mouhamadou Moustapha Fall wutu maam Cheikh Rayane Fall Cheikh Moustapha Fall bàyyi ko fi 1950 nag Serigne Cheikh Fall Baye Góor toog xalifa Cheikh Mouhamadou Moustapha Fall lig sëñ Mourou Aminta sëñ Massamba Fall borom ngàcci sëriñ Cheikhouna Fall yaaram ba sëriñ Cheikh Fall Khady Gueye xalifa Njaareem xalifa Xombal sëñ Ousseynou Fall sëñ Saliou Fat Sow sëriñ Saliou Suisse sëñ Abdou Aziz Fall yaaram ba Serigne Cheikh Khady Gueye nekkoon rakku sëñ Mourou Aminta nekon nday jooram waaye xel kom la wàccee liggéey yàlla na yàlla euh, dolli ko leer euh, ba ci sëñ Abdou Aziz Fall ba sëñ Abdou Aziz Fall bu Mbour ba soxna Dieng euh, mi nga xamante ni jox nañ ko sëñ Bassirou Sarr jaamu sëñ Touba mu am ci Serigne Djili Sarr sunu xarit boobu. mën naa koy lim ba ci sëñ soxna bu Fall ba ci Maam say ba ci soxna Daba Fall ba ci soxna Boussa Fall mi ñu joxoon Cheikh Mahamadul Moutada mu am ci sëñ Fall Moutada rakkam yooyu yëpp rek Serigne Cheikh Fall Baye moo leen samp moo leen taxawal moo leen yóbbu daara lépp lu war ci ñoom Serigne Cheikh Fall Baye Góor moo mottali yéene yi eh, Cheikh Mouhamadou Moustapha Fall keroog bi muy wutu Cheikh Mouhamadou eh, Moustapha Fall am 32 ans toj àll bu àll boo xamante ni ginnaaw xel kom benn àll gënu koo yaatu ci yoonu murit muy saam xat saaxa sixruka fii sarxin wa fii xarabin waaye suturu yi dana ba saam yaaram bi waaye Fall waaye gàcce ngalaama sunu jàmbaar ji Serigne Cheikh Fall ndigal ku ne xam na ni 84. bi fi Serigne Cheikh Fall bàyyi góor bàyyi ko sëñ Moustapha bàyyi góor yokk na liggéey ndogu yi bi mu fi bàyyi ko 85 sunu jàmbaar ji euh, Serigne Cheikh Fall ndigal euh, mi nga xamante ni mooy xalifa Serigne Cheikh Fall euh, bàyyi góor waaye sëñ Mbacke Madeleine dañu woon ki nu gërëm ak ki gërëm bu sooy dem nuróowul am na ko nax moroom sa baay bu baax ba baay Moustapha Fall jàmbaar ju baax ja wàcc na waaye yàlla na ko maam Serigne Fall teeru fa biir àjjana baay Moustapha Fall daa am ngërëmu Serigne Cheikh Fall bàyyi góor tey jii bis bii nga xamante yaa ngi koy def 4 avril foofu ca Ndakaaru ku ne xam na ni sëriñ am sëriñ sëriñ Mouhamadou Mountakha Mbacké ñaanal la la ci waaye sëñ Amdi Fall Modou Mbenda ñaanal la la ci waaye tey jii sa buntu muy sëriñ Cheikh Fall ndigal mi nga xamante ni mooy xalifa euh, sëriñ Cheikh Fall Baye góor naar moom xadiloo ñaanal la ci yaay booy baleen lay jox nga nga waxtaan ak mbokk yi topp ci biir réew ak bitim réew siyaar bii nga xamante ni siyaar nga ko Serigne Cheikh Fall ndigal mi nga xam ne mooy xalifa Serigne Cheikh Fall Baye góor dañuy jox Baye Fall seen mu tij mu tijil la euh, turu yàlla sunu baay bii nga xamante ni ku ko xam xam ko ci keppaaru euh, Serigne Cheikh Fall nekk sunu xaritu euh, Serigne muy Serigne Cheikh seen gaynde maadaan doomu Baye Ibrahima seen Sadikh ba bokkoon ci mag ñi toppoon Serigne Cheikh góor kon sunu baay dañ lay jox nga yëkkati ay kàddu ci ki nga xamante ni mooy Serigne Cheikh Fall góor Baye Fall seen doog a yëkkati turu yàlla wi. asalaamaaleykum wa rahmatulahi taala wa barakatu wax ji rafet na sëñ bi. so kàddu yi rafet na waaye ni nga xam moo ci nekk rek mooy dañu ñaanal sëñ mu Mbàkke yàlla bàyyi ko fi fi yàlla bàyyi nag ko yàlla wéral di sëñ Amdi Moodu Mbende saa borom bàyyi ko fi ak njabootu maam Cheikh Fall gi di ñaanal gépp di ñaanal sëñ saa borom bàyyi ko fi te bu fu yàlla bàyyi yàlla ko yàlla wéral moom mel ni jëf ji nga xamante ni jëfi yàlla la mu jëfi sëñ Tuubaa muy ndog yi nga xamante ne waxtu ne ñu ngi koy togg te kërug Cheikh Fall goo dugg ma kërug Cheikh Fall goo dugg ku mu mën a doon taal yaa nga fay jolli ñuy togg ndog yi di ko yët Serigne kon dañu ñaan yàlla fayal ñu maam Cheikh Fall lépp mooma dañu ñaan yàlla nañu yàlla fayal maam Cheikh liggéey bi nga xamante ne dañ koy ñu ngi koy liggéey sëriñ bi yalla nañ ci jëriñu adduna yàlla nañ ci jëriñu alaxira yàlla nañ ci jëriñu yàlla nañ ci jëriñee ci barke maam Cheikh Rahima Fall jëf ji jëfi yàlla la jëf ji ñuy jëf jëfi suñu borom la ndog yoo xam si koy togg di ko jëbal Serigne Touba ab liggéey mënu koo gën a kawe kon dañuy ñaan ki nga xamante ne maanaam mooy togg ndog yi ko kanam mooy maam Cheikh Rahima Fall yàlla ko yàlla fayal ndax su ma nee maam Cheikh Rahima rek mat na ndax këru Cheikh Rahima Fall goo dugg ña ngay tàllaka yàq te lépp Cheikh Ibra kon dañu ñaan yàlla nanu yàlla fayal maam Cheikh Rahima fayal ñu jàmbaar ji nga xamante ne moom lañ génn ci këram muy sëñ Cheikh Ndigal Fall sa borom bi bàyyi ko fi te bàyyi fi ay baayam bàyyi fi ay rakkam ah yaa faatu yow ñu ngi lay sant te di la gërëm ndax da nga jigéen ju baax ju laxasaayu doonub taalibe bëgg lu baax waaye ku xam soxna mbuuba sa waajur xam ne nii rek nga war a mel ku xam Modou Fall it xam ne yow wax dëgg yàlla danga koo yokk waaye wàññiwoo ko kon dañ lay ñaanal suñu borom bi yàlla jàppale la ba liggéey bi nga xamante ne yaa ngi koy sémb waxtu na di ko liggéeyal sëriñ bi yàlla na la ci yàlla dooleel ci dara ji Serigne Cheikh Fall Baye Góor asalaamaaleykum wa rahmatulahi taala wa barakatu. fa laa ilaaha illallah. laa ilaaha illallah Fall. fa laa ilaaha illallah. laa ilaaha illallah Fall. فلا إله إلا الله لامبو مام جار فال fal yàlla daal fal ngeengaw la ilaha illa allah fal fal la ilaha illa allah jërëjëf Serigne Touba jaaw rek maam Cheikh Ibrahima Fall jaaraama soxna jaaratulaa sëñ Saliou Mbacke yal na yàlla yokk ay leeram taas ñu ci barkeem Cheikh Mountakha mu sëñ Bassirou yal na fi yàgg bi neex ci moom ba naal yi mu mbëbët yëpp mu eggale ko ak jàmm sëñ Modou Aminta Fall na yàlla yokk ay leeram te taas ci barkeem sëñ Amdou Mody Mbenda Fall na fi yàgg te te yàlla taas ñu ci barkeeb sëriñ Seex jëmm Fall sëñ Moustapha Bassirou yal na yàlla yokk ay leeram te taas ñu ci waaye ki ñu doon xaar ñëw na borom 300 pour cent borom jaareem borom Touba borom Poroxaar yal na fi yàgg lool te ànd ak wér ñun borom lamp maam jaar ñu yàgg ci ginnaawam di ko liggéey ba keroog ñuy am ngërëm a soxna jaaratu laa maam Mariama Bousso di wax ni fii ñu ñëw fii fii moom day suñu kër sëñ Moustapha la woon rek. ak sëñ Moustapha Baye góor sëñ Moustapha Fall mi ma meññ man Fatoumata Fall jébbalu ci sëñ Moustapha Baye góor à l'âge de 13 ans man ma nekk xale bu ndaw ànd ak sama baay Moustapha Fall sama baay baay ànd ak sëñ Moustapha Baye góor ñuy jógee fii di daw di daw di dem ba ci kër sëñ Cheikh Mbacke Gaynde Fatma yóbbu ndogu yi booba man xiini rek. moo ma ci neex ndeysaan ñu topp ci di moo tax at mu jot bu weeru koo ñëwee ku ne dinaa la siyaare dinaa dem ba ci xalifa général des Baye Fall fa laa jógee léegi muy sëñ am di Modou Mende Fall yàlla na fi yàgg lool te ànd ak wér waaye ndogu yi fi may bàkkeeloo dëgg ah di ànd ak ndogu yi fii la ndax kóllëre sama baay Moustapha Fall ak sëñ Safa baay góor moom Cheikh Ndigal sama rakk yeeg sama mag yëpp ah sama seen euh, sëñ Safa baay góor jógee ñu yeeslu ci moom muy ku baax ku am kóllëre koo xam ne liggéeyub sëñ Cheikh Fall bi yëpp saytu na ko muy Sam Fall tey boo doon lim tey doo fi jóge fépp foo xam ne sëñ Cheikh Fall bàyyib góor sañcoon na ko moom Cheikh Ndigal yeesalaat na ko yokk na ko yaatal na taalibe yi ràññee na taalibe yi fonk na taalibe ba yoon yi gën a yaatu keroog bi nga xamee ni tey jébbal na ci sëriñ Saaliw am ñu bari ñoo xam ne jaxasoo woon na seen bopp ma ñëw fekk ko Dakar sëñ Modou Aminata di ñëw Dakar ngan keroog xéewal yi 33 xar lañ ma jox ne ma soxna si sëñ Assane jox ma ko ne ma nanga ko defar indi ko sëñ Modou Aminata kooku sama camion laa yabal ak yooyu yëpp ñu dem bañ demee mu ne man du ma ne man du ma romb mukk Cheikh Ndigal te ziare wu ma ko doog a egg ah ci sëñ Modou Aminata bi ma ko ziaree ba pare ma ne ko Fall mun ma waaw ma ne ko coow ji bari na waaye ñoom dañoo xamul ne yow sa digganteeg sëñ Safa Baye Góor da nga kaa yaatal ba tey jii diggante Serigne Touba la ak maam Cheikh Ibrahima Fall ma ne ko ñetti at yi nga xamee ne Cheikh Amadou Bamba ànd na koog sa maam Cheikh Ibrahima Fall. ñetti at yooyu moom ngay mottaleeg sëñ Saliou ñoom it at jot ñuy ànd ndogu yi ànd nañu ba ci sëñ Saliou benn sëñ Saliou recevoir ñu man moom ak Cheikh Ndigal rek lépp ci liggéey boo xamee ne liggéey bu ñu suñu borom nangu kon ñoom dañ koy ñaanal mu yàgg fi lool te ànd ak wér lii muy def mu gën koo man te yàlla roofaat ko kattan yàlla am na ko mun na ko te deewu ko dara na ko gën a roof kattan gën a yokk ay xéewalam gën a yokk mbooloom te defal ñu ko ñun ñëpp. waaw di sant nag ñi ma àndal baay Fall seen di ko sant bu wér di sant sëñ Mbacke Madina di sant sëñ Moustapha mi nga xam ne dañ koy xoolee sëñ Safa baay góor mu yàgg lool ci sëñ Saaru sëñ sëñ Safa Baye góor di jàmbaar lool waaw kon ñu ngi lay ñaanal gudd fan ak wér doomi sëñ Safa Baye góor yëpp nag ñu ngi leen di ñaanal yàlla may leen gudd fan ak weer sëñ Safa Baye góor yaatal na njabootu maam sëñ Safa Baye góor gi yaatal na njabootu maam Cheikh Ibrahima Fall bi waaye yaatal na njabootu Cheikh Ahmadou Bamba Xaadimu Rasuul boo ñëwee ñëpp ñëw di ko ziyaare waaye na fi yàgg Fall yàgg fi te ànd ak wér ñun moom la ñuy bëggee Fall yàgg fi sëñ Touba baax Sibra Fall gore Maam Jaara sell wasalaam. ñi ngi santaat ñëpp di gërëmaat ñëpp di gërëm bu a baax euh, soxna Fatoumata Fall euh, lamp Maam Jaara kaddu yi nga xamante ni yëkkati na ko sunu baay Moustapha mbay Baye Fall seen sunu baay Moustapha mii nga xamante ni ci keppaaruk Serigne Cheikh Fall euh, Baye góor la nekkoon. àndoon nag sëriñ bi ba sëriñ bi jóge fi mu ànd ak sunu jàmbaat yi gaynde Ngor gi Naam Fall muy sëriñ Cheikh Fall ndigal di xalifab sëriñ Cheikh Fall Baye góor keroog ba Cheikh Fallu Fall di dem géej lanaa ndaamali kat mooy saa garab saa cumikaay kii jafe na Cheikh Ibra naa roy doonu gaa ngi bu wér ndaamali kat moo mujj doon ndanjaama kii jafe na Cheikh Moustapha Fall Cheikh Falloog baayam rek ko ko am am bukki yomb na waaye am jur muy xalam kii jafe na waaye gàcce ngalama sunu jàmbaar ji sëriñ Cheikh Fall Baye góor mi nga xamante ni moo yokku liggéeyub sëñ Mouhamadou Moustapha Fall Cheikh Moustapha Fall dem bàyyi koog rakkam yii ma lim muy lim bu sori mën naa koy lim ba muy juróom benn fukk ndax man ñoo ñoo ma saf muy rakkam yëpp rek Serigne Cheikh Fall Baye góor taxawu leen waaye gàccaa nga laa ma tey jii suñu jàmbaar ji Serigne Cheikh Fall digal soxna Fatoumata Fall mi ngi jox rendez-vous 4 avril mooy sunu indépendance foofu ca Ndakaaru place de la nation la ñu war a déparé jaar avenue Cheikh Amadou Bamba jëm Masaalikul Jinaan ni ni yon yenoon na ko yi fii ci Touba noonu la ñu koy foofu ca Ndakaaru 4 avril Serigne bi Serigne Cheikh Fall ndigal ñaanal na ko ci sëñ Mouhamadou Mountakha mi fi nekkal Serigne Touba nee na ko am nga ci ndigal man seere laa ndax fekke naa ko am di muudum benn nee na ko am na ci ndigal sëriñam sëriñ Cheikh Fall ndigal nee na ko am na ci ndigal allahumma salli wa sallim wa barik jërë ngeen